jéggi dayoo bu xaw a doy waar parce que tey yan ñëpp gis ngeen lu ñu dund ñun waa taxawu Sénégal ci atu 2010 te wolof njaay na nag ku weddi gis lu ñu wax weddi gis bokku si ñun lu ñuy wax mooy lu ñu dund ñun du ñu waxantu yenewuñu kenn safaan wante lu ñu dund dund ko ay at ñu toroxal ñu tey dara beesu fi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 di ànd ak ay ñuy jaawle dëj ak ngénte ma yaay bañ